الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي buñ ne ay laa ilaha illallah lor jee tax kon lor ak njëriñ lore ak njëriñe suñu borom dong ko moom la xam le ci aaya boobu aaya boobu nag mooy feddali tawxid yi nga xam ne mooy laa ilaha illallah amul kenn kuy buur ku dul yàlla te buur dëgg-dëgg mi nga xam ne mooy nguuru yàlla gi moom doo nga mën lore moom doo nga mën a jëriñe moo mën a lore moo mën a jëriñe kon nag tawxid jooju nga xam ne suñu borom wéetoo na ko moom kenn dong mooy lore ak jëriñe te lore ak jëriñe mu ngi dugg ci biir tawxid tawxid da nga dugg ci biir laa ilaha illallahu waxtu woo xam ne dafa ne yiwu laa ilaha illallahu daf cee jublu jëpp yiw boo xam ne suñu borom nar na koo defal ab jaam te dara mun koo fank bu ne ayu laa ilaha illallah mi ngi ci jiblu lor ji nga xam ne yàllaa koy yor te kenn yorul lor ku dul moom te kum jubloo lor dara mun la dox ci diggante bi ba tee nga loru loolu mooy waxtu woo xam ne gannaaw dafa delloo lépp ci yàlla te mooy tawxid waxtu woo xam ne suñu borom defal na ko yiw lu mu bari bari bari mu xam ne mu ngi dugg ci biir tawxid ci yiw laa ilaha illallah la dugg kon lépp loo xam ne musiba mu ñu teg ku ko doon jéem a def lu bon la wala ku jaaroon ci yoon wu bon yoon lor jooju yi mu ngi jóge ci ayu laa ilaha illallah mooy laa ilaha illallah mooy nguurug suñu borom bi te lor ak jëriñ ci la nekk kon ñaari yooyu moo tax wa inim siskala bi dun falaa kaashifa lahu suñu borom bu la laalalee lor ji amul kenn ku koy wuññi illaa huwa lul moom waaye bu fekkente ne wa inim siska bi xayrin bu la laalee it bu la joxee yiwam bi na la wóor ni moom rek mën te keneen mënul wala wa in yuridika bi xayrin falaa radda li fadlihi bu bëggee defal lu baax itam ngëneelal yàlla kenn mënu koo delloo gannaaw kenn mënu koo delloo eh, di la xañ loolu mooy eh, tabshira la ilaha illallah ak ak israara la ilaha illallah قال الزكي عبد الودود كلام الأولياء لست أفهم لأنني أنا أنا yi bu la jaaxalee yow mi xamul dara yow mi yowwul maanaam ci xam tawxid ak wala nekk wilaaya waxal ne Abdul Wadud mi am xel waxoon moom dafa ne woon man daal waxi wàll yi xaw ma ko ndax ñoom ñooma man man a man man laa ñoom ñoom la maanaam bu jotewu ma ak ñoom dara bokku ma ak ñoom kon na kon nag seen wax dafay am biir am bitti bitti bi la nit ñuy waxtaane biir bi ñoom ñoo ko xam ñoo ko yàlla bayit bi la lam yanxu lam yanxu chamsa kalkali xufuulu walaysa yanxu qamari ufuulu lam yalfu du jublu mukk mukk mukk mukk xufuulum ak càggante du jiir du jublu ci samsa yi sama jant xol sama jantub xol ak càggante du ci jublu mukk walay seen fu xamri ufuulu sama sama weer ak suux du ko jublu mukk kon jantu xolam jantu xolam xam ngeen ne xolu aarif billaahi dafa am xadis boo xam ne muhaddisoon yi wax nañ ci coow yu bari am na si ñoo xam ne doye dil nañ ko am na si ñoo xam ne dëgër na nee ñu xam ne mooy hadis bi ñu ne hadisul qudsi la suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ne xajuma ci sama suuf si xajuma ci sama asamaan si waaye xaj naa ci xolu jaam bi ma xam bi ma gëm dëgg dëgg gëm mooy bi ma xam dëgg dëgg xam kon xolu jaam bi xam yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg waxuma sëñ Tuubaa sax jaam bi xam yàlla bu mu doon rek moo gën a leer jant bi jant bu dul fenk jant bu dul fa mukk la maanaam aarif dafay toll foo xam ne nelaw ak yeewu ñooy yem ci moom wala nelaw gën a dëgër ci moom yeewu fi nga xam ne fa la xol bay taxaw ci xam yàlla ak màggal ko ak fonk ko buy julli fa lay toll buy buy nelaw fa lay toll buy lekk fa lay toll buy wax ndax boo déggee li ñuy wax tamkiin tamkin maqaama la moo xam ne nit ki dafa miin pay suñu borom ba miin boo xam ne dafa mel ne fa la dëkk ba nga xam ne génn fa ak dëkk fa ñooyam nekk fa ñooyam ci moom xam nga ne nit dëkk bu mësula dem bu fa demee dugg ci néeg bu mësula dugg gis fa ay kéemaan dana jommi dana jaaxle dana waaru waaye bu fa dëkkee bis bu ne mu ne fa bu yàggee ba yàgg ba yàgg dana ko miin miin boo xam ne dootu soppi xolam naka noonu gaa ñi nga xam ne àgg nañ ci tamkiin dañu xam seen borom xam goo xam ne yàgg dékku leer ya yàgg déglu almala waxtaanu almala la laa yàgg yër lawxul mahfoos xam yooyu yëpp ba nga xam ne amatul benn xijaab benn kiiraay bu dox seen diggante ak seen borom nga xam ne seen xol mooy raw jant bi ci baatin te moo ci moo koy raw yomal jant boobu nga xam ne mooy seen jantub xol nga xam ne dañuy jàkkaarloo lawxul mahfoos ñenn ñi def ummul kitaab bi du som mukk te du sàggan nga xam ne buy nelaw noonu sëñ Tuba waxe ci gis bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa aynuhu kaana tara wa qalbuhu lam yanami bëtam daana nelaw waaye xolam du nelaw mukk naka noonu awliya yi ñi ko ci doon zahir ak baatin ñoom it seen xol bu nelaw mukk bu ñu bu seen bët di nelaw itam bu seen xol bu nelaw loolu Cheikh Abdul Wahab Sha'rani nee am na ñaari bis ci ci semaine bi ñoo xam ne sama xol du ko nelaw mukk bu ma sama bët dee nelaw itam Muhyiddin Ibn Arabi nee na bi yi semaine bi yëpp yuñ borom suñu borom defal na ma ci sama xol du nelaw ndegam wàllu yoo koy am as ci yonent sëñ Tuubaa nag loolu la leen xamal fii ne jant bi nga xam ne mooy jantu xolam maanaam xolam bi nga xam ne moo raw jant nga xam ne ni nga xam ne ci irfaan noonu la xol bi mel ci irfaan mooy ni jant bi mel ci adduna ni nga xamee ne bii limaamu Saafi yi gaañoo te limaam Ahmad ibnu Hanbal ne yàlla na yàlla yërëm Saafi yi mu ngi mel ci adduna ni jant meloon ci adduna mu ngi mel ci nit ñi ni aafiya mel ci nit ñi xam ngeen ne jant ak aafiya de amuñu wuutaat noonu la sëñ ba meloon kon moo tax mu ne lam yanaxu chamse këlkël yi xufuulu wala sa yanxu xamari ufuulu weeram weeram du so jantam du so day wéy ba abadan abadan abadan abadan fii mu nekk ci adduna ak ci tamkiin wees musaahada génn ci fanaa u ndax tajalli sifaat yi ba àgg ci tajalli zaat yi ba àgg ci ci tamkin àgg ci mushahada ba sax fa ba nga xam ne tamkin amatul yokku ak dolliku amatul xaw foog rajaa weesu na ko weesu na xëybatu ak unsu woote na xabdu ak bastu kooku mooy dëgg-dëgg tamkin boobu jant du so mukk te niir du dox digganteem ak li muy leeral te itam du jant bu ñuy jàpp day wéy ba faw da day dolliku ba fu ba abadan ba ba saari taxaw ba ba ñuy dugg àjjana ba ba ñuy gis yàlla day dolliku ba faw doomu aadama day tuur deret ci kaw suuf ñoom malaaka yi xanaa waaw moom kay loolu sax laa wax nag te déggu moon sax jooju waaye xam naa yàlla moom duñ ko wax ndax yàlla moom amul jamono moom bi nit ñi dikkee ak bañ dikkagul lépp a ci moom la la janloo woon ak nit ñi tiim leen na nga xam ne bu ñëwee noonu la ñu mel amul yàlla moom amul jamono amul béréb kon amul tey ak ëllëg ak démb kenn waaw malaayka yi lañuy wax malaayka yi itam li tax waaw waaw xam-xam yi dañoo wuute ñii neeñu malaayka yi ñu ngi ko xamee ci bi mu nee xalifatan fi ard ndax xalifa malaayka yi ba ñu ko réeree moo taxoon ñu ne ataj alu fiha mooy sulu fiha way siko dimaa wana musabi bi xam di ko nox alislam dañoo xam ne nga xam ne mooy wuutu yàlla ci kaw suuf nekk xalifaam lépp lu ne ci kaw suuf daf cee am échantillon ci ko ci lu malaayka yi am mu am ko lu rab yi am mu am ko lu baahima yi am mu am ko lu garab yi am mu am ko lu doj yi am mu am ko lu suuf yi am mu am ko te loolu bu amee la budde mu def loolu ñuy wax ñenn ñi ne déedéet ndaxte aadama bi ñu ko daataan tën am na yeneen i nit ñoo xam ne ñu ko jiit woon ci suuf si ñooña ca ñooña la Haaroot ak Maaroot woon ca la malaayka yi daan atte la ba xew-xew yooyu te booba dañoo xamoon booba la ñu xamee nit ñi muy mel ku ñu bind ci suuf ndax yooyu ñu gisoon nit ña doxale noona ñu ne loola noona lañ ko xamee woon li ma njëkk a wax nag ne xalifatullahi dañoo xam ne loolu na dama ko fi bañ a tàmm gën a gudd lool dafa jafe moo tax faw man nettali ko ba mu jeex ngeen musoo ba mën a gudd bopp yi te dana gudd kon ndax xalifa daal li tax doomu aadama place am malaaka mënu koo wuutu tam mën a wuutu malaaka xëy na beneen yoon mën naan ñu waxtaani ko li def kii daal moom malaayika yi daal ñaari ak xalaat la ci doomu adama la ci ulama yi wax bii nee ñu nit ñi fi njëkkoon te jiitu aadama ñooña lañ xamoon ba xam ne kon bu aadama itam nit ñi buñ dikkee dañ ne ñii nga xam ne ci maarifa lañ ko xamee dañoo xam ne xalifatullahi fil ardi day boole lépp te kon loolu mooy tax muy mën a euh, xam yi ci kaw suuf mën koo jariñoo ndax suuf si dañ ko fee def ngir ay njëriñ defe naa ne conférence euh, Nations Unies asalaamaaleykum asalaamaaleykum nekk murit te doo jébul mën na nekk waaye ak muritam lu tax na ak muritam murit ci boppam dafay baat boo xam ne bi fi sëñ Tuubaa ñëwul murit a ngi fi la na doonoon murit mooy nit ki nga xam ne seet na ba xam ne boppam doyu ko ndax xam gu mu xam yàlla li mu bëgg lépp mënu koo amal boppam ci saahir wala ci baat amu ko ci mënu koo am ci saahir mënu koo am ci baatin mu xam ne ci saahir ba mu juddoo faw ñu for ko faw ñu dooñ ko faw ñu sang ko faw ñu wat ko faw ñu tudd ko bu ma faw ñu nàmpal ko faw itam ñu jàngal ko faw ñu yar ko bu dee itam ay nit a koy sang ñoo koy sang ñoo koy jullee lu mu xamit ci àdduna nit a ko ko xamal moo bu dee alxuraan dañ ko koy jàngal bu dee lislaam dañ ko ko xamal nit a ko koy xamal mu xam ne kon nit mënu la dem wacc nit ñi kon nit lu mu xam gannaaw yàlla ci nit la jaare gannaaw loolu kon mu xam ne noonu mu mënu la demee rek wacc nit ñi ci zahir ci baatin tam noonu la demee mu xam ne kon nag bu ko bu takk cercle bi ko buum gi bi mu tàmbalee fii di yéeg bi ñu dikkee fii jeexal na li bindeef yi moom weesu na koo xam ne mbindeef àgg na fa ci xam wala ci dem wala ci yëg dara desitu lu lu xam ne lu yàlla dong moom la mbindeef amatu ko woon lii lii moo représenté suñu borom fa kaana qaaba qawsayni mu nekk xoccub ñaari xale yi maanaam ñaari arc yi awaadinaa ah, wala mu gën a jege loolu ba mu gën a jege loolu mooy bi mu seeyee ci mabbu azza wa jalla ba ak dellu seen di bi wujudi mawhubi alxaqaani fa awha ila abdihi ma bi gayri wasat jibril suñu ko fa yetteewal ko yitteewal goo xam ne jaarewul ci jibril jibril li bu ko xamu ko nee na foofu suñu borom jox na ko xam-xam benn xam-xam boo xam ne araam na mu xamal ko kenn digganteem ak boromam rek la xam-xam boo xam ne war na ci moom mu xamal ko mbindeef yi mooy alquran ak lu mu indi ak lépp loo xam ne ci xadis xam le na ko ci sharia ak beneen façon xam-xam boo xam ne bu gisee ku ko soob te mën koo yenu attan ko te mu neex ko mu xamal la ko xam-xam boobu ci la awliya yi rawante moo tax Ali Abi Talib am naa ci xam-xam loo xam ne Jibril amu ko Mikaayil amu ko Israil amu ko Israfil amu ko ndax ci xam-xam boobu la ko suñu borom nee na لقد أرسلت لساني في فمي فانفتحت لي ألف باب من العلم فوحق المعبود لو جاءت لي وسادة جلست عليها لحكمت على أهل التوراة بتوريتهم ولا أهل الإنجيل بإنجيلهم ولا أهل هذا القرآن بقرآنهم tàbbal naa sama lamiñ ci sama jëriñ juróomi bunti xam-xam ubbi ko ci man buñ ma tegaloon njëganaay ma toog ca danaa àttee ñoom tawreet ci seen tawreet ñooñ ngeen jël ci seen injil ñooñ furqaan ci fala takun an xidmati bi sa mooy istidaad boobu moo xoon ak disposition disposition yooyu moo xoon ak ni mu ko composé muy gën jaamati composition nga xam ne nit ki mën naa àgg ci boroomam foo xam ne malaayika xelam xalaatu ko waaye mën naa dellu ba yées maanaam animaux yi moo tax mu ne ñu delloo ko gannaaw ci gën jaa suufe yi ne suufe lu dul gaa ñu gëm sa jëf-jëf jiw kon ah, l'âme angélique et euh, l'âme bu ñu seetee c'est différence kenn ku ci nekk ci leeru yàlla lañ la bind ndax a nafsu tamutu ahlu sharia yëpp dagal d'accord d'accord nañ ci euh, euh, immortel laal immortel daanu dem tuuti bu ñu àggee ci suñu wax ne am na question buy laaj ndax sëñ Touba loolu euh, Moussa Ka sëñ Moussa Ka wax ci masali ko ji naan naan li sëñ Touba wax ne bi Moussa labalee Firawna ak Nooxin mbënd mam indi woon doomu aadama ji ko yëpp suñu borom far leen ak yooyu yëpp nag sëñ Tuubaa mu nee moo leen joxoon ay mbóotam bu nu dee waxtaane loolu am na question bu ko tudd bu nu dee waxtaane loolu daanu dem ci mbirum am basiri bu soobee yàlla daanu ci wax explication bu leer insha allahu rabbi sëriñ Fay mooy laaj ndax sëñ Tuubaa moo bind ne ay taalibeem yëpp dañuy dem ajjana bala ma koy expliqué dara danaa ko xamal ne taalibi bu mu nangu sa njëbbal day da dem àjjana waaye loolu sax yëmulu cet du ma dikka gun ci lu dul xam nañu ne àjjana mucc maanaam lu jafe la ndax iblis ñu doon waxtaane sànq Sëñ Tuubaa wax na ne du muy misaal ne ثم السلامة من الغرور لأمر ربي أصعب الأمور لأنه يكون بالعلم كما يكون بالجهل بقول العلماء mucc lu jafe la waru lu yomb la dana dikke nit ki ci xam-xam bu bari dana dikke nit ki ci jaamu yàlla bu bari dana dikke nit ki ci cër bu ko yàlla cëral muy baatin mu war ko nga xam nañ ne ñi nga xam ne dañoo xam yàlla sañ-sañu yàlla bi ñu gis moo tax fu ñu toll rek ñu ngi ci tiit si Abdou Qadir Jilaani nee na suñu borom jox ne ma ñeen fukki kóllëre wóolute yoo xam ne nee na du ma la def makru mukk maanaam du ma la fexeel maanaam du ma dugal alkande ci sa biir dund wala alaxira maanaam ku mucc nga waaye nan loolu lépp taxul sama xel dal ndax xam ga mu xam yàlla rek xam sañ-sañam ba ndax suñu borom bu ko sooboon mu ne la duma def lii ba noppi def ko te du tax waxam dañ sax loolu duggul seen bopp xam naa ne waaye sallallahu alayhi wa keroog ci xare badra ba mu nekkee ci aris ba moom sidna abu bakrin tàllaloon na suñu boroom ay loxoom ne ko nang ma may ndimbal ba suñu boroom nangu xamal ko ne ko na nangu na danaa la dimbale ci yéefar yi ndax booba néew nañu ñetti téeméer contre junni waaye teewul bi xeex bi daatan tàmbali mu nekk sidna abu bakar ca mbaar ma tàllal ay loxoom yàlla di ñaan naan ko suñu boroom kuréel bii day bu ñu alkoo déefatu la jaamu ci kaw suuf yëkkati loxo yi ba làmbaay ji mu làmboo woon tegoon ci kaw mbagg yi wadd suuf si naabukat for ko teg ko ci kaw mbagg yi ne ko baada munashadatika rabbika fa inna laa qad qabila da'wataka noppalal sa bopp wàññil alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sihadi bi furudin wa سكرته لأنه قد ساخني لوتني به نفى ما أنفني وهذا